te wërta laal deretam mbaa alalam mbaa ab deram aw mit jullit bu ne dañ ko war a ormaal bañ a tuur deretam bañ a laal alalam bañ a yàq ab deram ci lu dul yoon ku tuur dereti jullit te fayantoo war ca bu lislaam dee dox ñu fayu ci moom bu ci fayantoo warut joxe di war ca ba tey ñu def loola su fekkee teyu ko nag moom kenn du fayu ci moom day fay rekk diya alali jaambur nag moom ku ko yàq rek war a fay bu ñu seet ndax moo ko tey wala teyu ko bu ko kooku baalee nag baax na waaye bu dul loolu moom tey ak ñàkk tey ñoo ci yam bu dee fay alal ja moom tamit lu ñuy peese mbaa lu ñu natt mbaa lu ñu wàññi ni ay nen day fay lu toll noona bu dee nag loola kenn du ko peese kenn du ko natt kenn du ko wàññi di ki yàq ab rajoom mbaa montaram dañuy woo ña nga xam ne ñoo xam loolee ñu wax lu tolloog moom ci wurus mbaa xaalis mu fay loola muy xiima ja yàqub der moom jotal nañ ko leeral bu baax a baax wax nañuy war a jégloo yàq derub jaambur gazaaka naka noone xijraanun ak tong ak jàmbur lixoo ñeel ab julit li xëyri xaqi sharaxi ñeel lu dul ak yoon faxdar na nga watandiku kullaxoo léppam bokk na ci caay-caay yi jekki-jekki jàmbu sa mbokkum julit jàmbu sa mbokkum julit dañ koy teqale bu fekkee ne la ngeen séq ba nga di ko jàmbu sa bakkan rekk la dara yàlla nekku ca daañu la may nga jàmb ko lu mat ñetti fan guddeeg bëccëg te bañ a weesu ñetti fan dañuy jàpp ne nit moom faaw muy mer ak a jàpp mer bu njëkkee jekki ne ko suñu laa jàmbu rek sa mbokk daal koy araamal day daal di metti moo tax ñu mayee ñetti fan ñi bu ñetti fan ñi jàllee nag sooy ba mu xam ne lañ ko mayoon jeex na na taxaw temm ci jeexal jàmbu ga ndax hadis ba nee na ayuma muslimayni maata waxuma mutahaajiraani lam yajtamiha fil janna ñaari jullit ñoo xam ne dañoo tongoonte ba faatu rek buñ tasee ci àjjana mukk buñ bokkee dem àjjana itam duñ fa tase duñ fa gisante ba tey addis ba ba mu ne juróom ñii kenn du ci am julli maanaam mooy mooy juróom ñi ku ci julli itam sa julli doo su ko nangu da caa boole ku dogoonteeg mbokkam jàmb ko lu ëpp ñetti fan xamsatun laysat lahum salaatun imraatun saaxitun alayha zawjuha walxabdu al aabiqu wassaarimu allazi laa yukallimu axaahu fawqa salaasi layaalin wa mudminu xamrin wa man amma qawman wa hum lahu kaarihuun juróom ñi nga xam ne ku ci julli itam sa julli yàlla du ko nangu mooy jigéen joo xam ne jëkkëram da koo mere te la tax jëkkëram mere ko moo ko def ñaareel bi mooy jaam bu daw bàyyi ab sangam loolu nag mat naa taxaw leeral ko jaam ci yoon mooy yéefar boo xam ne dañ ko woo ci lislaam mu bañ ñu ne ko kon nan juboo ci nu bàyyi nga dund ci suñu biir ngay joxe galak yow doo joxe asaka nga bàyyi lislaam tasaaroo doo xeex lislaam doo def lu koy xatal ñu bàyyi la nga dund ci suñu biir mu gànt loola ñu wëlbatiku nag xeex ak moom ba jàpp ko kooku mooy jaam ci lislaam ku mel noonu nag ay doomam ak ay sëtam ba kera ak ngor di ca laal rek ay jaami yoon lañu njaam gu bokkut ak googu rek njaamuk aada la njaamuk cedd la goo xam ne tooñ gu rëy la woon gu ña amoon doole daan tooñ ña amutoon doole nga xam ne léegi sii koo xam ne samaam mas na caa am te nga xam ne nii rek la demee woon da nga war di jéglul samaam joojee da nga na moytu wax kenn nag naa ko ci cosaan kat noo leen daan yilif mbaalu ko nuru nga xam ne loolee bàkkaar la woon bu ay maamam togg woon rek lu mel noonu moo andi woon coow la bañ jàppee ay jaam ci xaraj Samba Sadio te ku ñuy wax Ibrahima Codé Diop ñëw jëblu ci sëñ Touba te sëñ Touba ne ko lépp loo jële woon ci alali Samba Sadio muy ay jaam muy alal delloo ko na génn say loxo ndax jaam ya duñu ay jaam alal ja du ak mànga ba loolu andi woon coow lu rëy rëy te nettali woon nañ ko ci irwa un nadim ban koy nettali ba tey daa am ñu defe ne kuñ ma sa moom samaam rek maturo ilimaan loolu nag lu mata leeral bu baax a baax la ka nga xam ne kay jaam dëgg-dëgg la nga xam ne dañ ko woo ci lislaam mu bañ ñu xeex ak moom ba jàpp ko jaam kooku lañ wax ne su tuubee ba bokk ci waa lislaam itam te góoreegut nga xam ne ab jaam la ba léegi yooyu jamono sib nañu ñu def ko ilimaani raatib maanaam ñu fal ko ci ab jullikaay mu féetewoo fa di jiite jullik farata mbaa jullik sunna ni ki jullik korite tabaski waaye mu jekki-jekki jiite sax sibu ñu ko ñu féetali ko itam muy jiite lu mel naafile weeru koor nga xam ne moom du farata du sunna ba tey sibuñu ko sib nag mooy loo xam ne bañ kaa def moo gën waaye buñ ko defee du ko tee baax nga xam ne kon jëmm ja nga xam ne ci dëgg-dëgg jaam la ci yoon te góoreegut kooka bu jiitee dana baax ak njiitam dara sikku ca lañ cay sif rek mooy ñu féetale ko jiite ga ci bérébu jullikaay ba te lam fay jiite di farata mbaa muy sunna kon nag nu jàpp foofu ne kañu ne jaam dëgg dëgg la ci yoonu lislaam bu xasee génn ci njaam ko rek gore mook gor yépp ñooye moo ci jiite ak lu ko nuru gépp njaam goo xam ne nag moom njaamuk aada ak njaamuk ceddo rek la du woon njaamuk lislaam ak tooñeel rek la woon képp koo xam ne mas nga caa laal lu ko nuru war nga jéggalu ndax yàlla jéggal la boo amee itam maam joo xam ne mas na caa laal dara say boo di ko bari la sàkkul njëgal tey moytoon ak damoo lu mel noonu ñetteel bi mooy ku jàmbu mbokkam lu ëpp ñetti fan kooku julli gum julleeti yàlla du ko nangu waaye nag ci kaw jàmbu ga di rekk wàllu bakkanam de bu fekkee ne la tax mu jàmbu mbokk moomee mooy sàmm ormay yàlla ndax kooku daa am lu ñu xëtt ci lislaam te ba mënu ci dara ba tax mu jàmb ko nag bëgg mu jàjju bu delsiwaat loola jàmb ga mën naa yàgg lool lu mu yàgg-yàgg tuyaaba la ci am ndax yàllaa ko waral ba kanam waralu ko ñeenteel bi mooy ku saxoo naan sàngara juróomeel bi mooy kuy jiite aw nit te jiite ga neexu leen kooku dañ koy teqale bu fekkee ne mbooloo mépp ñoo maase ci bañ ak njiitam na bàyyi su fekkee ne ñi ci gën a néew kat ñoo bañ ak njiitam waaye dañuy gaa yu baax yu ràññiku lu ñu bañ rek ñu xam ne lu bañu la ba tey kon na bàyyi bu fekkee nag ñi ci gën a néewa te doolu ñu ñu ràññiku nag moom mën naa jiite du wàññi dara kon jullit bi deratam ak alalam akub deram des ko war a ormaal du tee nag bu demee ba jàdd yoon ñu teg ko ca yoon wa def ca la ca lislaam santaane wa kaxtiqaarihi ak niki ak xeebam wakal ihanati ak niki doyadal ga wakal mudahanati ak niki mbóorante ga wal xiyaanati ak wor ga bokk na ci xeeti caay-caay yi xeeb mbokk njulitam mbaa yàpp ko di ko doyadal hadis ba nee na al muslimu axul muslim laa yuslimuhu wala yadlimuhu wala yaxqiru bi xasbi mri'in min assuu'i an yaxqira axaahul muslim kullul muslimi xalal muslimi xaraamun damuhu wa irduhu wa maaluh julit mooy mbokkum julit waru koo bàyyi bi da ko war a dimbale waru koo seetaan waru koo tooñ dañ ko war a tooñ kay mu koy dimbale waru koo xeeb ba tey doy nag mon sëkk nee na julit bi di xeeb mbokkum julitam mu baam waat nag lañ ne woon dereti julit akub deram ak alalam dañ ko war a ormaal ba gis nag mu jàdd ñu delloo ko ca yoon wa wakal mudahanati ak niki ak mbóorante dañ koy wax nag mbóorante noonu ci piri wolof waaye al mudahana mooy bëgg lu neex nit ba topp ko ci lu neexul yàlla boroom doole yi ragalul yàlla mu bëgg lu leen neex ba di ànd ak ñoom di jaxasoo ñoom di leen tagg la ñuy def ci lu ñaaw moom mu di ko rafetlu lu mel noonu lépp mu daa xana lañ koy tuddee boo fukk diini daal ba nangu loo xam ne neexul yàlla ndax rek woyof diine loolu mooy almudaahana safaanam nag mooy almudaaraatu almudaaraatu mooy borom doole ji nga xam ne ragalul yàlla boo ragalee mu dox sa digganteeg sa diine nga fexe ba ànd ak moom nag ca la ko neex te naqariwul yàlla loolu moo tudd almudaaraatu moom nag lu ñu sopp la sopp lañ sax nga def ko mboolem doomi aadama yi kenn ku ne la nga xam ne neex na ko te naqariwul yàlla te boo ci àndeek moom xolam sedd ca nga ànd ca ak moom ndax ngeen dund dundin wu rafet ànd àndin wu rafet wal xiyaanati ak wor julit daa war a matal wëlëre waaye war moom caay-caay gu rëy la ci ab julit ab julit day moytoo war ci genn wet wakal mu maakarati ak niki ak fexeelante wal mu jaadalati akuk biijoo mbaa dàggante wa kulli faasidin ak jëpp aji yàqu minal muamalati ci xeetu jëflante ab julit day moytu di fexeelanteeg mbokkum julitam kenn ku ne di fexeel morooma aw ay loolu caay-caay la gu mat a mayu ba tey ab julit day moytu di dàggenti di xuloo ka dóorante lay ngir rekk bëgg daraja ak bëgg àddina rekk ba tey loolu caay-caay la bu dee lu feeñ ci wàllu diine ñu soxlaa xam la ci yàlla wax dañ koy teelu kenn ku ne ànd ak rafet yéene ba dëgg ga feeñ ñëpp rek bokk ko topp waaye waaye jekki di biijoo di dàggente di dóorante lay ngir rek yëfi àdduna bokk na ci xeeti caay-caay yi jullit ñi war a moyu ci gàttal sax nee na mën nga ne bépp xeetu jëflante boo xam ne rek lislaam rafetluwu ko xeetu caay-caay la boo xam ne ab jullit da ko war a moyu xeeti jëflante yi aay mën na am ci wàllu jaay mën na am ci wàllu jënd mën naa am ci wàllu takk soxna mën naa am ci wàllu defal ma mu fay la yi demee noonu nag téere fiq yi ñoo koy jàngale lanoo génn bunt bi muy waxee caay caay biti yi maanaam caay caay yu fés yi nu delluwaat ci baat bu mu tuddee wat taxasu bi akuk parparloo parparloo mooy ci kaw rek seet da yéen a bokk deret mbaa yéen a bokk nangam mbaa yéen a bokk nangam tax nga sotle ko dal ci keneen loolu moo tudd parparloo moo tax ku ñu wax waasilata nee na dama ne yonante bi mal xasabiyatu lan mooy parparloo mu ne ma antu ayna xawmaka xala zulmi mooy di ngay dimbali saw nit te wóor la ne ñoom ñoo tooñ hadis boobu rawaahu abu daawud ba tey am na fa yonante bi waxe ne laysa minna man daha ila xasabiya wa laysa minna man qaatala ala xasabiya wa laysa minna man maata ala xasabiya kon daal bokk nit deret mbaa bokk ak moom ab dëkk mbaa bokk ak moom leneen ci yëfi àdduna tax na nga farle ko sot keneen te xam nga ne nekkul ci dëgg loolu mooy parparloo moo tax bi yonent bi ne unsur axaaka zaliman aw madluman dimbaleel sa mbokk moo xam daa tooñ moo xam dañ koo tooñ dañ ko ne waaw moom day buñ ko tooñee xam na nun koy dimbalee waaye nag moom ci boppam bu tooñee ah nun koy dimbalee mu ne tam nauhu min az-zulmi fa dalika nasrun la mooy sa mbokk ci boppam bu la wóoree ne moo tooñ da nga koy aaya tooñ ga génne ko ca tooñ ga loola mooy dimbale ga nga koy dimbalee faslun li ab dog la fil bawaatini ci wow nëbb ya maanaam ci caay-caayu nëbb ya dafa noppi ci caay-caay yi nga xam ne ñoo fés bëgg a jàll ci yi nga xam ne ñoo làqu am mar rada ilun daal caay-caay ya allati ya nga xam ne xadd battanat biire nañu fa yee ñoom xewoo bu nafsi moo di sikki bakkan ba xaysu wajidat foofu xam ne fekkeef na leen caay-caay yi nga xam ne ñooy làqu ci biir jëmmi doomi aadama mooy rekk sikk yi nga xam ne moom la bakkanu doomi aadama di làmboo li fekk nga xam ne bakkanam dafa roogut mel ne rëy wala xir ci loo xam ne mëtt xir wala ñàkk yéene kenn la ko yàlla defal wala topp bànneex wala topp mer wala nay wala jekki-jekki bañ kenn te yàlla taxut yu mel noonu mooy caay-caayu làqu yi yuxsha def na ragal suul xaatimati ñaawuk mucc xalaaman ca ka nga xam ne kaanat nekk nañu ñoom caay-caay yooyu jaasimatan di aji waaf wala di aji boof fii ci moom walam ya tub te tuubut lillaay jëm ci yàlla aha dana yàl nanu musal arrahmaanu aji yërëme ji min haa ci ñoom fi zamani ci jëpp jamono wa charri cheytaanin ak ayu seytaane wa kulli zi fitanin ak képp ku di boroomi fitna ragal nañu ne ku amee xeeti caay-caay yooyu te tuubu ko ba dee dikk ragal nañu ne faaw rek mujj gu ñaaw dal ko mu ñaan nag yàlla musal nu ci mboolem xeeti caay-caay yooyu faaw faaw musal nu it ci ayu seytaane ak ayu képp ku am fitna wax yo ñoom nag xaqaaribun ay jiit la ñu doon ba nayit xaqaaribu dañ koo maas yaari maas ko maxal xayaati ànd ak ay jaan mun xalibaatun yu di wëlbatiku xaqibal mamaati ci gannaaw faatu ga caay caay yi nag nee na ku ko faatuwaale bu duggee ci bàmmeel dañuy soppiku ñoom caay caay yi ay jiit ak ay jaan yàlla di ko ko bugale caay caay ya dëgëroon lool am doole ñooy soppiku ay jaan caay caay ya woyofoon nag ñooy soppiku ay jiit wax ya ñoom kaanat nekk nañu ashadda di gën a tar min zahiratin ci caay caay yi aji fés li kaw ni xaa ngir seenu nekk tulaa imu di dëppoonteeg mooy di yelloonteeg an naf sa bakkan ba abadan faaw kamaj tinaabu nëx yi nit nga xamee ne teet ak tere maanaam moytu ak tere kaana nekk na afdala di gën mi nikk tisaabil amri ci fàggu ndigal la fiimaa ci li nga xam ne nuqi la toxaleef na ko caay-caay yi nga xam ne ñoo làqu ci biir doomi aadama ñoo gën a ñàng ñoo gën a tiis caay-caay yi nga xam ne ñoo fis ñu koy gis ci biti ndax caay-caay yi nga xam ne ñoo làqu ci biir moom faaw day déggoog bakkan dañuy amuk déggoo ñoog bakkan ndax bakkan bu defaruwut day bëgg ak kawe bëgg yëkkatiku daraja bëgg aw turam ñëpp dégg ko te lu mel ne bëgg a nekk ca kaw féete kaw ñëpp ak bëgg saw tur siiw ak yu demee noonu dana yóbbu nit ci def te yàlla taxut dana yóbbu nit ci réew ci kaw nit ñi jàpp ne moo leen féete kaw dana ko yóbbu ci gis boppam ak yeneen yu bare bare nga xam ne kon caay-caay yi nekk ci biir moom dañuy amuk déggoo ak melaw bakkan bu fekkee ni bakkan bi dafa roogut ba tey caay-caay biir yi ñoo gën a ñàng ndax faaw dañuy ànd nit ki saa yu ne mu yëngutu ak muy dal mu nelaw ak muy yeewu mu tawat ak mu wér muy tukki ak mu ñàkk a tukki tey caay-caay yi nga xam ñoo fis nag moom li ci ëpp ay bàkkaar lay doon rek léeg-léeg mu def ko léeg-léeg mu bàyyi doolu ci itam caay-caay yi nga xam ñoo làqu nit ki mën nay góorgóorlu at mbaalu ko ëpp di def lu baax di def lu baax ba ba ci ngir su gàtt gàtt rek kenn ci caay-caay yooyu yàq la mu defoon lépp lépp ca at ma mbaa lu weesu at ci bi yàggaay ni ki mu sax ci def lu baax yàgg ca lool ba am bis rek mu daldi naw boppam lam defoon lépp daal di yàqu ni ñu waxee rekk ne diine ñaari xaaj la benn bi mooy topp lañu digle benn bi mooy bàyyi lañ tere waaye teewul nag bàyyi ga lañ tere mooy la nga xam ne moo ëpp daraja te it moo gën a jafe noonu la ñaari xeeti caay-caay yi mel bi nga xam ne moo làqu moo gën a ñàng moo gën a mata bàyyi moo gën a diis caay-caay yi nga xam ne ñoo fis ñuy jàkkaarloog ñoom yoon day takk ne dar ul mafasidi awla min jalbil masalih maanaam fekk yàqu-yàqu yi moo gën a yey te moo gën ñoddi maslaa yi moo tax ñu wax naa sax in lam tutiq an taabudallaha fala taasi su fekkee ne mun laa jaamu yàlla itam bul ko mooy moo tax addis ba wax ne itam maa nahaytukum hanhu fajtanibuuhu wa maa amartukum bihi fafxalu minhu mastataatum li ma leen aaye bàyyi leen ko dana rekk bàyyi leen ko dogu ca nga xam ne wari su ca laal dara dara mu tekke ne lu ma leen digal nag def leen ca la ngeen man wax yi ñoom nag wa in kaanat ak doonte nekkoon nañu kasiratan di aji bari tarjeexu danañu dellu ila talaasat anwaax jëm ci yetti xeet inqilan na nga xellu nee na caay-caay yooyu nag te mooy caay-caay yi biir yi li ñuy bari bari boo ko toppee du génn yetti xeet yi wax yi ñoom moo di an na nafsa naa naka sunu bakkan màjj bu walatun lu ñu jàng la maa lu ñu bind la ala iba i taaxatin ci bañ ak topp maq bu walat ngu di guy nangu li xob bi raaxatin ngir sopp ab noflaay wazaati lii yu kaddiru dina nëxal sha'anal xoboo diyeti mbirum ak njaam fii maa ci la nga xam ne axbaroo xibaar nañu ko yetti anam yi la wax ne bu njëkk bi mooy bakkan doomi aadama ci boppam ni ko yàlla bindee day bañ ak topp yàlla ca na yàlla bëggee bakkan ci boppam daal ni ko yàlla bindee dafa bëgg am noofu laay lool ba nga xamee ne na war a topp yàlla ba yàlla nangu ko da koy bañ moom bakkan bi te nag ab jaam moom nangu rek la war a def ba àgg ci yemukaayu nangu su xosee bëgg am nooflaay ba mu wuute topp na ab sangam bëgg rek loola kon day daal yàq ak njaamam tuma isaama kasabat topp ndeem fàggu na waa xamilat te mu jëf shaabat fu mu rax ko bil afaati ci ay gàkk xataa afsadat ba mu yàq jëf ja wa kaanata nekk zaali yu kaddiru di naxal ak tawxiida tawxiid li annahu ngir naka moom shirkun ak bokkaale la tukkun nekkal rashidan di aju jub ñaareel mooy soo bësee bakkan bi bu mu jëf itam jëf ja it mel nañ ko bëggee ci zahir faaw rek mu fexe ba rax ca lu ko yàq niki gistal mbaa lu ko nuru te xam nga jëf ci lu mu réeree ci zahir bu fekkee sellul rek nga xam ne kon ngisal am na ca mbaa lu ko nuru kon xeetu bokkaale dugg na ca day mel ne kon loolu day ñaawal tawxiitub jaam bi ndax tawxiit mooy wéetal yàlla jox ko léppam jëfam bañ caa rax lenn lenn lu may yéene ca yàllay kese kese kon nag tomb ñaareel bi mooy boo bësee bakkan bi ba muy jëf itam li ci ëpp dana fexe ba yàq jëf ja ci ngistal mbaalu ko nuru te loolu kon day ñaawal tawxiitub jaam bi ndax jaam bi daa war a wéetal boroomam te boole ca jëfam sax lépp jëm ci boroomam genn xeetu bokkaale bañ ca am tuma ida salima topp ne mucc na min xaa ci gàkk yooyee xam vamat mu màggal loxoo ñeel jëf ja fa yoo jabu te def ko yëmloo bi ci moom fa xabitat te ñu sippiku ñoom jëf ya xam nga daa weesu ñaari tomb mooy bakkan bi ci boppam dafa bëggum nooflaay ba nga xamee ne bu nangoo topp yàlla ne yàlla bëggee muy benn ñaareel bi mooy boo ko bësee ba mu jëf itam jëf ja dina ko rax ci lu mel ne ngistal ba mu yàqu bi ko ñetteel nag nee na mooy boo fexe woon ba jëf te jëf ji amul ngistal amul dara lu ko yàq itam tomb ba ci mujj mooy bakkan day fexe fexe ba nga naw sa jëf waaw day fexe ba nga naw ko te xam nga jëf moom boo ko gendikoo gendikub naweel lu mu tuut tuut rek loolaa koy daaneel yàlla géesootu ko daal lay seetaan yaag jëf ji ba xam nooy def bu dee yàgg moom dong nga xam ne kon daal yett yi moom ci la nit ki war di bëreeg bakkanam mooy xam ne bakkanam bii moom dafa bëggum nooflaay ba du nangoo def topp yàlla nañ ko bëggee mu fexe ba di ko jéem a suuf xeeti jaamu yàlla yi waaye nag su boobaa itam mu fàttaliku ne li ci ëpp bakkan bi balaa bàyyi rax ci jëf ji lu ko yàq ni ki ngistal yooyu yaar bu ko weesoo nag mu taxaw temm ci bañ a naw bañ a geesu la mu jëf waaw yett yooyu moom boo seetloo mboolem xeeti caay-caay biir yëpp du génn ci yett yi nga xam ne kon faawu jaam bi di farlu ci bés ba kanam ci topp na yàlla bëgge farlu itam ci bu dee jëf dara bañ caarax lu yàlla bëggut ñetteel ba mooy fexe ba bañ koo naw bañ koo gis bañ koo geesu walasta déet yow taxtawi ngay làq alwusoola àgg dil jalil jëm ci aji màgg ja bi xayri qatxil xaqabaati ci ludul dog pakk ya yaa nabi la yow aji xellu ne doo mën a àgg ci yàlla mukk te fexewoo ba jéggi pakk yooyu nga xam ne mooy sa sikki bakkan bakkan bi daa bari ay sikki yoo xam ne faaw nga bëreeg yépp ba daaneel leen ndax daa mel ni sikk yooyu ay pakk lañ yu taxaw temm ci gàllankoor la sa digganteeg sa boroom dog pakk yooyu ba tàggu ñoom ba àgg ci yàlla ni ko yàlla taw fi xale ñenn ci jaam ñi dafa wuute lool lool